وأرجحهم عقلا وحلما وأسبغ على أوليائه نعما عما اللهم صل وسلم على من أتاه حكمة وحكما سيدنا ومولانا محمد صلاة تنبو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما بعد مكي قلنا بني سنتي برمي سبحانه وتعالى جلتي أننت بي صلى الله عليه وسلم جار لك يا يا مالك صحابة التابعين يا تابع تابعيه يعني يلا من نقول الصلاة والسلام باب دخلنا نقصن ميزان حسناتنا موي فرق بولم بكر وايد نقول بولم جام يلا بولم جل يا نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينا بني دينك سن باب دين دينك رجل يلا سبحانه وتعالى أكتبكم ak topp lépp lumu mu bëgg ak lu mu gërëm ñuy dellu si ci xutba tey aljumaa bi di nafar li ñuy tuddee alshabaabu ataaun wa nama maanaam li ñuy tuddee ndaw ndaw ndaw don la may la may la xéewal la goo xam ne yàlla daf koy defal as réew waaye tamit yokkute la ci xéewal maanaam croissance la ci ci ci réew li ñuy tudde ndaw ndaw mooy jeunesse ci tubaab mu doon loo xam ni lu cher la lu rëy la waaye du ñëpp la ko yàlla jagleel kon réew bu ko yàlla joxe ay ndaw rek jox na ko loo xamante ni maanaam daanaka trésor la ci àdduna bi nga xam ne du ñëpp ñoo ko mën a am loolu moo tax ñuy wax naan umma bu nekk xeet wu ne ñi nga xamante ni ñooy seen ñooy keno ya mooy ndaw ñi bu fekkoon ne dañ koy misaale comme jàkka ji oto yii ko moo tax mu taxaw umma xeet woo gisit xeet woowu lay tax mu taxaw te mën a dem te mën a yokk loola ndaw ña ñoo koy def kon ndaw mooy li nga xam ne mooy mooy fondement wu peuple waaye it ndaw mooy teral peuple it ci jox ko dignité ak dayo bu rëy ba ñu mën koo xam ñu mën a xam peuple boobu ci àdduna bi yëpp ràññee leen ndaw it mooy doon ki nga xamante ni lépp loo xam ne lu ñu mën a nas la mën koo defar mën koo taxawal ci peuple boobu ba mu mën a dem ba am ba am jeexit ba am njariñ ëllëg ña koy defit ndaw ña lay doon koy defee rek ci seenu ragal yàlla ak seenu dëgër maanaam doon ndaw ñoo xam ne ndaw ñu dëgër lañ ñu am taxawaay lañ waaye sori lépp loo xamante ni faiblesse la maanaam ak doyadi la kon daal bu ñu ko doon tënk dañ naan ñi nga xamante ni ñooy ashabaaba imaadul umma ndaw ñi ñoom ñooy ñooy ñooy potoy xeet wi ñooy potoy xeetu lislaam bi waaye ñooy potoy suñu réew yi tamit ñoom bu ñu taxawee lépp loo xamante ni lu ñuy tabax la moo xam lu jëm ci wàllu doole la moo xam lu jëm ci wàllu xalaat la moo xam lu jëm ci wàllu stratégie la ñoom dañu cay am dañu cay am taxawaay bu rëy rëy bu doon téeméer la da naan man nga ni juróom ñaar fukk ya ñooma maanaam soixante dix pour cent ya ñoom lay doon foog seen loxo dugg ci loola bu ci dugg rek loola du mën a dem te it seen loxo dugg ci mooy tax réew mu ñu nekk réew moo gis ndaw ña dugal seen loxo ci réew ma lépp loo xam ne lu ñuy bëgg la ci réew ma di ko namm di ko nas pour mu mën a réew ma mën a dem ca kanam bu ci seen loxo duggee loola day am garanti ne loola dana mën a dem loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala bu nammee ci peuple yiw bu nammee ciw xeet yiw daf leen di tàggatal ay ndaw yoo xamante ni ndaw yu am taxawaay lañuy doon waaye bu fekkee ne doonuñu ndaw yu am taxawaay rek yëgal ni peuple boobu yàlla nammul ci ñoom ak yiw ndaw ñi am taxawaay ñoo xam ni dañuy am ay jumtukaay dañuy créer ay jumtukaay yoo xam ne pour réew mi la yoo xam ne yu set lay doon ci xam-xam bu sell bu dagan loo xam ne dafay doon li nga xam ne mooy mooy intérêt yi réew ma maanaam dinañ leen tàggat ci façon woo xam ne kenn ku ci nekk sa réew jaral na la sa bakkan kenn ku ci ne foo dem ci àdduna da nga fay nekk pour liggéey waaye am am fa taxawaay tamit pour pour pour pour tegal sa réew ay garanti loola di loola loolu yàlla da leen koy defal boo seetee yenn peuples yi surtout boo demee mel ni asiatique yi mën nga jël ñu mel ni chinois yeeg yooyu euh, loolu am nañu ci jeexit bu rëy rëy rëy mooy lu ñu tuuti tuuti tuuti kenn ku ci ne gox boo mën a ci àdduna loy yëngatu fofu ak lu mu tuuti tuuti tuuti dang ca bàyyi wala xel lo xamni intérêt la bo xamni day delu ci sa réew ma nga jóge ben ci image bang fay nekke ben ci doxalin yang fay nekke ben baña baña xat man baña ben am xët li nga xamni moy mooy chartey réew mi nga xamni dang fa ñëw te dekk lo fa yooyu yëpp ci la bok waye di liggéey di liggéey pour sa bop waye di liggéey lo xamni ni am jeexit yo xamni day delu wat ci sa réew loola ci yiw yooyee ca la bokk bu ko defee ndaw ñooñu dañuy doon ñoo xamante ni dañuy doon ay jëmm yoo xamante ni seeni xol day fees dell ak imaan maanaam bu yàlla nammee ci peuple ak yiw dana leen jox ndaw ñoo xam ne ndaw ñu am taxawaay lañ di dox ci loo xam ni intérêt général lay doon waaye ba waaye ba noppi seen xol yi day fees dell ak gëm yàlla bu seen xeli xol yi feesee gëm yàlla du ñu tala po du ñu tala fo ñu tala dinañ divertiru nag te lépp lu ñu leen lu leen di divertir lu daggan lay doon waaye dañuy fonk liggéey dañuy fonk temps dañuy fonk it yàlla ba dañuy mel ni ay montagne yoo xam ni montagne yu taxaw lañ ci seenu taxawaay ci seen seen peuple booba loolu bokk na ci xéewal yi nga xam ni yàlla da leen koy defal ci mën a mee ci ñoom yiw bu ko defee dañu doon du doon ndaw ñoo xam ni laa yaarifuuna al ahzana wal maasi dañuy doon ndaw ñoo xam ne du xam njàqare di gaaw a jàq di gaaw a tiit boo jàngee ba pare yor sey diplôme nangam nangam amugoo liggéey commencé patiné boo toogee liggéey bi nga doon liggéey xaw am ay balbala dégg nga ay ay perturbation nga commencé dugg ci yeneen yoo xam ne daawoo ko def commencé jëfandikoo cigarette wala commencé jëfandikoo sangara wala ngay jëfandikoo yeneen yoo xamante ni li la ko yóbbee mooy jàq am njàqare ci sa avenir njàqare googu nga am ci sa avenir ba mu yóbbalee loolu li koy waral mooy manque liimaan bu dëgër manque imaan bu dëgër nit day war di bàyyi xel li yàlla namm ci moom bu dul bàyyi xel lu yàlla namm ci moom ku sonn lay doon nit ku ne am na lu yàlla namm ci moom te moom xamu ko kon li mu mën a def mooy lépp lu muy dugg lu muy dugg bu ci amoon garanti cent pour cent nay bàyyi xel li yàlla namm ci moom ca jëf ci mbir mooma ak liggéey bu mën a doon xam-xam bu muy mën di wuti loola bu ko dee bàyyi xel rek yàlla dina ko dimbali ba lépp lu ko gàllankoor ak lu mu mën a doon dana ca mën a dénk dékku mënul dékku lépp it dana mën a dékku genn wàll bi bu defee loolu da koy may sago ba mu mën a dund ak loola ba loola ngelawu jaar googu jaas googu mën a dem loolu xol wu fees limaan moo koy def moo koy def ci ndaw bu defee ñooñ du ñu doon ndaw ñoo xam ni duñu dañuy am dañuy gaaw tiit gaaw a jàq duñu doon ñooñu li nga xamante ni moom la ñuy tuddee ar riyaxul awasif mooy événement yi xew jékki-jékki rek comme niñ ko xamee si réew mi dañuy jékki-jékki rek am lu xew nga gis jamono joo xam da ngay gis nekk ci liggéeyam di ko saytu nekk nekk ci dégg nga fonk ay ay waxtu julleem ay jaamu yàlla ak yu bari am yenn xew-xew xew rek lu xew rek loo xam ne sax daanaka amul tax ko am njariñ sax loolu daal di perturber programme am ba mu commencé sàggane liggéeyam bi concentré wu ci lool masalan na ngi Sénégal ñun mën nañ li ñuy divertir dafa li ñuy divertiru daa bari li nga xam ne mooy ñëw ci ay imprévu ci suñu dund dafa bari ak yi nga xam ne sax dooy imprévu ñun ñoo koy créer xew-xew yu bari yi euh, yooyu nit dafay war di dundee ak jamono ni mu tolloo rek ni mu tollee rek nu dundee ak noona dara warul rëy ci moom lu dul yàlla subhanahu wa taala da ba dindi ci boppam li ñuy tuddee li ñuy tuddee sagu dafa koy rey sagu moo ñu rey ñun ñëpp sénégalais moo tax kenn mënu fee yor dërëm ñaar dërëm koo ci gis kenn ku ci ne bëgg naa fu mu toll di sol lu rafet te mënu ko bugg am oto te am amam yeggu bëgg a tabax benn air plus nangam ta am amam yàggu fa yooyu yëpp xeetu sagu la dafay tardeel peuple ci lu bari nit ñi dañuy dugg ci yoo xam ne mënuñu ko moo tax feebar yu cardiaque yeeg sonal ñoo yenn xeetu feebar yi nga xam ne yenn yu ñu àttanul moo ñu koy teg te du farata nag yooyu yëpp ay riyaaxul awaasif la nit dafay war a doon comme montagne boo xam ni danaan ñëmm li koy yëngal mooy yàlla subhanahu wa taala lenn lu dul loola rek moom ci ay mo ngi ci ay faratam du ko perturber bu ñewé lu ci lu ci lu mëna xew da na ko jël ci dayo ba mu tollol dox ak mom ta du yàq activité loola la jullit war di doxe bu défé defee ñooñu bu ñu mélé nonu dañuy doon ño xamanteni sabaqina ila kulli khairin wa fadilati dañuy njëkkante lépp lu bax ñom lu bax rek ñu ngi ci lu taxaw lépp lu ñu gis ne ni mën naa jural nit njariñ amal na umma bi xeet bi njariñ amal na réew mi njariñ amal na diine ji njariñ rek ñu ngi ca kooku day dem ba day yegg ci dimension boo xam ne bu dee ndaw la euh, du du am esprit bi nga xam ni mooy tardal ñenn ñi ndax suñu société ndaw lu ci nekkul comme montagne bu taxaw pour nga dem dina jafe dafa am ay gëm-gëm yoo xam ni dañ koy teel a dugal ci ci xelu gone ba mu màggaale ak moom te yàlla yàlla waxu ko yonent bi sallallahu alayhi du diine te it luy tardeel nit la beneen bi léeg dañuy fàttani nit bu xasee ba am ñeent fukki at amatul luy yokk ci moom du wéram du xelam du kàttanam du deretam lenn lu ci na day commencé di wàññeeku bu dee suñu société la da ngay bu demee ba am ñeen fukki at daanaka ci lay mat góor mat na léegi nag ida tamma amrun ba daa nuqsaanu mbir bu xasee ba mat wàññeeku moo ci topp ñu ne ko moom gone la moom gone la bul tabaxagum bul defagum nangam bul nangam nangam te moom mat na sëkk ba wàññeeku gi commencé di ñëw moo tax ñi ciy tëgg projet ñu ci bari duñ ko yeggale dañuy dee ba ko fi fekk gone yi du ñu màgg mbir ma daal di yàqu mu tas ñeneen ñëw sosaat leneen dañuy sos rek parce que dañ dul teel a jub moo tax te yëpp ay gëm-gëm la dégg naa sax am na benn dëkk boo xam ni boo fa demee eh, gone du dem du dem jàkka du nodd parce que dañoo gëm ne boo gone buy nodd foofu day gaaw a dee wala bu dee dem jàkka tàkkusaan surtout day day du gudd fan ay wax la yoo xam ni doo xam lu mu doon yooyu nag tardeel na lu baree baree baree bare ci suñu société loolu moo tax ngay gis ay ñoo xam ne dañuy dem ba nekk mag ba télé gàdd ay responsabilité yoo xam ni mënatuñu ci dara te gisuñu kuñ ko jox parce que mbooleem ñi ko waroon awu ñëpp kenn xamu ci boppam ne war naa mën a téeli pour mën koo doxal yooyu ay jafe-jafe la ci ndaw rawatina nag ndawi lislaam mat ñi bàyyi ci xel bu baax mbokki julliti bu ko defee ndaw ñooñu dañuy njëkkante lu baax ba noppi di sos ay mbir yoo xam ni dañ koy royee ci yeneen barab yeneen dëkk di gëstu xam-xam du doon xam-xamu théorie rek comme ci sénégalais wax rek xam-xam woo xam ni wax rek amul amul amul sos amul sos loo wax ñu ne la biti lañ koy defee cure-dent bi ñuy jëfandikoo sax boo lekkee pare dañ koy importer di ko indi te xam-xam yoo xam ni dinañ dina mën a jur leneen lu amal lu amal umma bi njariñ yooyu lu am solo la noona lañuy mel te it dañuy sori lépp lu bon lépp lu baaxul dañ koy sori lépp loo xam ne lu doyadi la dañ koy sori ba noppi lépp lu ñuy def ñu ngi ci ñu ngi ciy bàyyi xel xaq yàlla subhanahu wa taala maanaam la ca yàlla digle ñuy def ko lam ca téere ñu bàyyi ko bu ñu dee liggéey la leen war ak seen digganteeg seen boroom ci azaka zakat bu ñu amee nisaab bi lu ko mat bu at mi jotee ñu génne ko moo xam kii bay la moo xam kii sàmm la moo xam kii commerce la ak façon commerce wu mën a doon loola jullit yi koy respecté bariwul loola te loola nit bu ko dee nit bu dee liggéey te du génne azaka alalam jumi alal ji muy gàddu bàyyi ci azaka ji day xaram ci moom lolou daf ko wara génne moomu ko yàlla moko ko sante sant lu war la ci mom te bu koy génne kim koy jox soxlawul sax mu nan ko jërëjëf daf koy jox rek dem yoon xamni li haqqi haqqi yàlla la ci alal ji bu ko defo rek mar day tali bu dul rek di fële en ci yàlla musal kon dañuy sam haqqi yàlla ci lépp lu ñuy def bu ko defé ñoño yàlla def leni di téyel boppam lépp lu ñu dugg rek yàlla dana ci def barke incha allahu taala kon ñu xam ni doomu aadama ci ndawam comme ni yàlla bindee subhanahu wa taala li muy man ci ndawam bu xasee ba jëm mag dootu ko man mooy li ñu wax sànq kon lan lañ ciy jàngee mooy lépp lu muy def na ko def ci ndawam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi ko seqoon yëpp wala ña ca ëpp ay ndaw lañ woon loolu moo tax lislaam bi taxaw bu doon ay màgget rek ko seq kon lislaam du yegg si fii ndax ñoom ñëpp dañ leen faagaagal ndax du ñu am benn doole ju ñu xeexee du ñu mën a war fas tukki lu tolloog ay cinq cent kilomètres ay huit cent kilomètres wala gëléem du ñu ko man du ñu mën a toog di mokkal mokkal xadis mokkal alquran di ko bind du ñu ko man ñooñu yëpp li waraloon loolu mooy ay ndaw moo tax yàlla joxoon ko ay ndaw subhanahu taala ma niy jël misaal ñu mel ni asxaabul kahfi ay ndaw lañu woon tamit yu amoon taxawaay yu amoon pas-pas yu amoon dogu nekkoon ci seen réew gisoon fa injustice bu metti ñu doon ko xeex ba noppi di xeexaale shirk maanaam bokkaale yàlla waaye lañu réussir bu fekkoon ne du ñu ay ndaw duñu ko may duñu ko man ak la ñu dékku ci ay torture yu ñu leen torturé ak bunduxataal yu ñu leen bunduxataal kon ndaw lu am solo la ci réew mi trésor la Afrique nag dañ ko am ay malheureusement xamuñu ko léeg-léeg masalan nga gis Sénégal benn événement xew masalan léeg-léeg su sax ñu ngi naan réew mi neexul ba ñu bari fi ñu ngi jël gaal yi di tukki di dem ci yeneen réew pour mën a wuti foofu dara tukki lu baax la de pour wuti xam-xam wala pour wuti wërsëg waaye lislaam daf lay jàngal sa bakken wi nga di ko sàmm te bu ko teg ci yoon woo xam ni wóor na la ni sag maanaam sag dee xaj na ci ci wut xaalis rek loolu lislaam da ko tere mbokk yi léeg-léeg nag ñi ko téewari di loolu moo am lislaam dafa tere nit muy wuti xaalis ci façon woo xam ni wóor na ko ni maanaam dee lay gën a jege dund foog mu leer lool mën na nag jaar ci yoon woo xam ni day dem yoon wu légal kooka dara nekk ci beneen bi it bu amee gëm yàlla gu dogu mais bu fekkoon ne day xëy di am juróomi dërëm ci réew mi wala fukki dërëm dina dina dina bàyyi xel loola te sax ci tey bàyyi xel lu yàlla dogal ci namm ci moom yàlla namm ci moom lan la na sax ci loolu te dogu ci dëgg la réew mi jafe na fi mu ne metti na ndax Sénégal mooy réew mi gën a cher dund ci Afrique fim ne li rapport yi joxe semaine bi passé xuma semaine bi ci génn loolu moom ñëpp a ngi yëg e ñaan la guerre nangam ak nangam ak nangam du dara mooy ni yore réew moo baaxul rek kese la amul leneen léegi nag nit ñi ñooy surtout ndaw ñi nga xam ni jàpp ñu ci dara faw benn ñuy sàmmonteeg li nga xamante ni moom la yàlla santaane pour nit ni muy sàmme kenam te liggéey dégg nga bañ a xeeb dara nay bañ a xeeb dara ki nga xam dafa am xam-xam li mu jàng na ko exploité na def ay effort bu mu ne pare naa rek aw mooy liggéey kenn jëluma rek ma dem toogi di naan attaya ak topp ay gaay yoo xam ne dañuy xëy di ngemb dégg di fecc di dóorante daanaka sportu sauvage la presque ñu ne loolu aada la loolu du diine làmb dafa xaram dafay delloo réew ginnaaw dafay delloo société ginnaaw day tax ndaw ñi du ñu am repère ñu am royukaay ndaw bu fekkee ne day xëy topp benn nit boo xam ne day gemb benn ñaar fi muy ne dina fa faat lu mu gàtt-gàtt ñetti waxtu julli ñettee bi li muy def la ci ëpp ay xërëm la ay ay sixir ay njabar la di xërëmante kenn ku ci ne boo mënee jekku sa moroom ba mu feebar feebar boo xam ne mën na caa ñàkk bakkanam sax di nga ko def pour gagné ko li muy wut lan la benn cent million la bu ko amee ci moom la yem am njabootam moom moo ci gagné ak kan ña koy organiser muy CNG bi ak kan xëy na billet yi génn ci stade ba ñu defaraat ci ay siège amul leneen yaay dem jënd ticket bi cinq mille wala dix mille passé fa temps boo xam di nga fa la yàq ñetti waxtu yoo xam ni watu doo ko julli wattu booba génn di nga xeex xeex bu metti ñaari amana sax booy génn dañ lay agressé nangu sa alal mbokk yi loolu lu ko jar ci aduna lu mat la di ko ñi di ci yeen nit ñi ñu ni la sport am waye ci yoon wu dagal beneen bi dafa xaram waaye ñi di ko def ci cadre insaniya maanaam humanitaire manam làmb du affaire humanisme ndax nit di ko ba mën naa dee ci say loxo Lo bu yëfi nit loolu même bu dul diine sax lu lu dul diine sax ñi nga xam ne dañuy dox ci cadre doomu aadama sax loolu nangu ko rawatina nag l'islam ñëwati encore ay catastrophe la gone yi xëy màgg gis ñooñu ñuy ci di dégg di bërti bërti te duñu ah ñuy teg ñooñu bët di leen roy bëgg di leen roy du leen sopp bëgg leen mais tamit bu fekkee ne ci loolu lañuy ñuy dund situation yooyu réew moomu des fi am yaakaar saa yi bu xewee da ngay defee ni Sénégal amul mag da ngay defee ni ñëpp ay xale lañ ndax mbedd yi day fees dell koo gis bopp yëpp ay bopp kawar yu ñuul kooku la ñuy yore nag nañ nañu nañu nañu góorgóorlu suñu bopp bu baax a baax boo fi jigéen ñenn ñi ñu ngi ci Ligue des champions yi championnat France Angleterre Espagne topp programme yi rek saison bi jeex na ñu ngi ci mercato ñii ñooy ñëwaat tubaab yi am na ñoo xam sax xamuñ ne Sénégal am na ay milliards lañ ciy fayeeku buñ paree dem créer seen entreprise Sadio Mané keneen a ci yem ku ci ne sa bopp ngay liggéeyal foog nit ñi xam lan moo leen war seen digganteek seen borom subhaanahu wa ak lan moo leen war ñoom ci lan lañ war a def ci seen réew li leen di xaar loolu loolu lu am solo la noonu la l'islam préparé ndaw ndaw ndawu l'islam ndawu jullit moom fayda dégg nga yu ñàkk fayda yi du ko këf bu xewoon ba nit ñëpp teg ci seen bët moom it yoonam nekku ci am na ay farataam am na lu ko war ne xëy bis bu ne yor programme yor barnaamijam di dox ci loola maytu lu xaram maytu lu baaxul maytu loo xam ne dafay tardeel nit maytu loo xam ne day yàq temps nawetaan ci juróom benn ñeenti weer fi ne école yu ubbi na bu yàgg yooyu yëpp ay ay jafe-jafe la yooyu nañ ci góorgóorlu wu baax ndaw ñi daal ñu xam ni bu ñu bëggee bu ñu bëggee dem faw ñu am fayda faaw ñu xam li leen war d'abord te dox ci li nga xamante ni moom moo leen amal njariñ te nangoo jàng te maytu taxawaalu te maytu poggu bari gi poggu bari dafay tardeel nit yooyu daal bu ñu ci góorgóorloo bu baax incha allah yàlla mën nañu dimbali ci lu bare bare bare bare bare mu mën a defar waaye boo nekkul sa réew nekkee sa réew yow nga ne doo bale bet yow nga ne doo liggéey liggéey boo xam ne dañ lay jël liggéey woo xam liggéeyu surga la ah, ba noppi gis gaal ne da nga koy jël dugg ci pour dem Espagne wala États-Unis boo dem foofu loo liggéey boo liggéeyul fii liggéeyu xam-xam est ce que man ngaa liggéey foofu liggéeyu xam-xam doole nga mën a liggéey foofu kon tàmbalil fii loolo yàlla jox rek nga téye ci loolo incha allahu taala buñ ko defee yàlla mën naa dimbali ñu bari ñu mën a defaru yàlla nañu ko yàlla defal ginnaaw loolu lépp nag ki nga xamante ne mooy ndey ji mooy état bi nga xam ne moom moo yilif ñëpp problème jafe yi am yëpp bu fekkee ne ni ñuy yilifee nit ñi war le war a nekk ci seeni nekkuwaay bàyyi xel seeni nekkuwaay bàyyi xel seenu dund bàyyi xel seenu xëy kon jafe-jafe yi yëpp du ñu ci yegg waaye réew mi dafa bëri politique ba nga xam ne lépp lu ñuy wax la ca ëpp wala luñ action yi ñuy def ya ca ëpp kenn ku ci ne da seet ña la arrangé ak ña la mën a sànnil carte ak ñi nga xamante ni boo leen defee leen nangam après ñoom daañ la mën a nekkal foofu man laa wutal ay nit te ñooñu ngay préféré jëm fa ku ci ne ku ci ne barabu liggéeykaay ba ba nga dugg ñi ci ëpp sa nit la fa dugal lijjanti la même boo jàngul sax ñuy fexe ba nga dugg fa rek pour garder la bu élection ñëwee ñu mën laa woteel yooyu moo tardé réew mi moo tax ñi nga xam ni ñu ngi jàpp ñu ci dara di gën di dee ñi nga xam ne ñuy jàng am ay diplôme dugal ko ci tiroir yi amuñu lu ñu liggéey parce que fu ñu dem dañ leen rejeté te am na ñeneen ñu ñu jël ñoo xamante ni amuñu capacité loola virus la boo xam ni bu continuer réew ma day dem ba daanaka ñi nga xam ni ñooy boroomi xam-xam kenn du leen xam maanaam ñiy jiite réew mi du ñu xam dara du ñu am compétence bi du ñu am xam-xam bi du ñu am maturité bi loola mu musiba la yanuñ ci yàlla musal bu defee yal na yàlla dolli ñu sàmmal réew mi te sàmm suñuy liimaan te dolli ñu dëgër ak kàttan te tàggat ndaw ñi ba ñu xam ni fii lépp yàlla rek moo fi nekk dëgg lislaam dafay ñëw régler ñaari problème doomu aadama mooy problème mu foiam ruuxam waaye ak problème mu jëmmam ñaar yëpp la boole lislaam ñëwul pour rekk ñuy jul ñuy julli di woor di lekk suuf du pour loola lislaam dafay ñëw pour ñuy julli di woor di jaamu yàlla waaye di dund dund googu nag dafay yaatu dund dund defar say say sa nekkin waaye defar nekkinu nit ñi dafay ñëw pour régler problème société kon yooya bu ñu ko gëstoo rek dinañ xam ni diine ji diine ju yaatu la dina la joo xamante ni mbooleem di ñuy wut di ko wuti feneen yépp bu ñu ko gëstoo ci suñu téere bii di alquran lépp lu ñu telee dinañ dinañ ko mën lépp bépp yoon boo xam ni gisuñu ko dinañ xam wan fan la fan la ñuy jaar pour mën a yegg fa ñu jëm yal nañu ko defal defal ko mboolem jullit